ayca bàkk ba jib na générique bi départ ne wasaare làmb tàmbali na ak jàngat làmb ma ànd ceeg sama papa sama xarit sama lépp muy Père Birahim nga xamante ne l'expert la euh, Père Birahim bu waxtaanee ci làmb sa xol day sedd Père Birahim bu waxtaanee ci làmb nga xam ne kii li muy wax maîtriser na ko ñu ngi gis ñaan yi ñaan yi ngeen di ñaanal Père Birahim yàlla nañu ko yàlla boolee defal ñu jàmm ci réew mi ak mboolem réewu jullit ñuy jaajëfal bu baax a baax Père maa ngi lay nuyu. waaw jërëjëf may auzu billaahi mina sheytaani rajiim bismillaahi rahmaani rahiim rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisaani yafqahu qawli hmm. maa ngi nuyu mbooloo bi nga xam ne ñu ngi teewal Wassare Lamb ñëpp di ko seetaan di safoo site bi eh, di ko bëggee hmm. waaye ñun tamit tey taxawaat nañu fii gannaaw moo leen nuyoo di leen ñaanal jàmm di ñaan sama kàddu yàlla leen fekk ci jàmm yéen ñëpp dafa leen sutura réew mi seen monde yàlla na fi yàlla def jàmm te jële fi jàngoro yeeg musiba yëpp ñu ñëpp kenn ku ne nekk sa sago barakatu rasulullah di nuyu la di nuyu jiri sama doom di hmm. nuyu waaw xale yi ñoom Ousseyn Guèyepp. xale yu mm. mag xale yi daal nga xam ne ñoo bokk si bi. Mm. dégg nga xëy na gan laa ci ma maîtriser gu ma tur yëpp. Mm. Adama Basiru waaye Adama Adama Basiru ñoom. Toubi Toubi ñoom voilà bi moom. <laughs> ndeysaan moom. <laughs> waaw ak ñoom ñëpp daal maa ngi nuyu ñëpp daal. di kontaan ta ta toog ak yow. parce que wax dëgg yàlla. xale nga boo xam ne bii daan bari na ñu ma toogal waxtaan ci làmb. waaye ni ngay posé question ni ngay laajee tamit wax dëgg yàlla. neex na. jërëjëf maa ngi tontu dama xam. Hmm. parce que man tamit léeg-léeg nga la wax loo xam ne xëy na ni nga ko waxee. Hmm. xale nga maîtriser gu ko noonu ma ne hmm. du nii du question ba addu leddi la. wala may weranteeg yow. waaye xëy na ki ko dund ak ki ko dund du ñu doon benn. dëgg la moo tax boo nee ak nii la pour ëllëg biir. nga xam gën a xam fi ngay teg sa tànk. dëgg la loolu rek la quoi. dëgg ma lay nuyu ñëpp di bëgg ñëpp nag. di jërëjëf. tey ñu fas yéene waxtaanee combat bi nga xamante ne combat bu mag la. Eh, dañoo bëri Balla gay daan ko ñu bëriwaat yàggut tuuti mm-hmm. eh, kii di Balla gay daanaat Modou Lo mm-hmm. mu doon combat boo xamante ne ñu ngi ko mm-hmm. tëggee woon fële ci stade Léopold Sédar Senghor tey moom lañ bëggoon waxtaanee bis boobu dayo bi dafa amoon fu mu toll Père Birahim ku ne Modou Lo wax Balla Gaye ñoom ñaar ku ci nekk champion la ci làmb tey yàlla def ñu dem ba dajawaat seen deuxième fois Balla Gaye daanaat ko combat boobu bi nga yégee ne taxawaat na revanche bi ban yëgin nga ci am waaw dëgg la parce que euh, nga may ma tuuti ma delluwaat ci combat bu njëkk ba. Mm-hmm. parce que ñoom ñaar ñëpp sama mbapat la ñu fële. Mm-hmm. ku nekk di def jaloore. Mm-hmm. toog naa fii ci télé bi wax naa ko ci télé yu bari wax ci site yu bari. wan na leen kii bàyyam ne naa ko sa doom ji bu amee sa ñaan des na ko dégg. te loola dara dañu ci muy Modou Lo mm. Balla Gaye yëpp naa papaam sama oto mm. jëlee ko positionné piscine olympique wàcc ko baaba ne ko lees gis naa sa doom boo xam ne boo ko toppatoo loolu ñàkkoon ci làmb di nga ko lekkaat mm. mu ngi dund maa ngi dund mm-hmm. te sit baa ngi fi xam ne li ma wax dara du ci dëgg bu dund bu lu dëgg rek ku ci nekk dina ñëw wenn dëgg kon xam nga wax bi kon tey la ma waxoon ah, ah, jili ñëw na àddina dox ba làmb booleem baa bu jëkk ba dama ci wax ne jili ah, dama leen ne Balla Gaye bii Euh, li Modou loo am loolu la am ba pare moo ëpp sut moo ëpp doole hmm. parce que ki mën li nga mën ba pare sut la ëpp la doole pour daan ko day jafe ki xam li nga xam hmm. ba pare sut la ba pare mu guy la ron la kooku bu xamee la nga xam rek daan ko jaful moo tax combat ba na mu demee bett moom hmm. àddina doxaat na nag ba làmb boolewaat leen bi leen làmb boolewaat tamit Modou Lo yokku na ci côté bi ba ba Balla Gaye yokku côté bi kenn ku ci nekk am nga benn avancement bu rëy ci làmb boo xam ne bi tey la nga amoon mënaat nga lu ko ëpp àddina làmb làmb boole leen ñu war a dajawaat nag mais dañ sama jàngat boobu tamit xam naa ne Modou am na fu muy xool Balla Gaye su ko fekkoon ne fekk jàng ko fa pour mu daan ko lu jafe lay doon. Mm-hmm. waaw foofu fu mu jàng ba daan Balla Gaye mm-hmm. lu jafe doon que foofu fu mu jàng loolu. Mm-hmm. foog mu maîtriser loolu ci Balla Gaye pour mën ci am dara. fekk maîtriser wu loolu suñu bëree tamit lu ñu bëri combat yi di gën a bëri Balla Gaye mooy plus victoire. parce que Balla Gaye naa daan ko Modou Lo daan waaye Modou it mën naa daan koo xam ne Balla Gaye mënu koo daan. te feeñ ci seen bëri. Mm-hmm. te loolu mu ngi feeñ ci bëri bi. Mm-hmm. te lool bon naa leen ko leeralal parce que boo gisee ma ama seen xam xool ni ko mën loo def. Mm-hmm. ma te seen xool ni muy def Balla kon nga xam ne kenn kenn ku ci ne am nga loo war a jàng ci sa morom pour mën a am ci moom ndam. dëgg la kon fii ne war na am na lu mu war a jàng ci Balla Gaye ba pour ba saa balaa seen carrière jeex. mu am ci moom ndam. feeg jàng ko nag pour mu daan ko waxuma doom waaye dina ma bett. waaw loolu daal dama gis-gis. jërëjëf mbokk yi waxul du am waaye kon balaa moo am dana ko bett. Mhm. mu doon làmb joo xamante ne dañoo bëgg Père analyser ñu ko. Mhm. su ko defee ñu jël si waat plateau bi. Mhm. waxtaan ko ànd ceeg Père Birahim jàngat làmb. Père Aïcha ñu dem ci làmb. waaw. tuuna rëy ma saay. Balla Gaye ngi nii ko suñu góos Modou Lo nekk suñu droit. ñoom ñaar ñëpp kenn ku nekk tey taxawaay bi baax na parce que kenn ku nekk tànk ba ngay jiital. mën mm-hmm. nga ko parce que moom moom lañ la xamee ci mbapat moom lañ la xamee ci arène. Mm-hmm. mooy nga taxaw pied gauche di doori gauche ñëw droite kii day coré gauche ñëw uppercut droite muy Modou mm-hmm. kii tamit day coré gauche ñëw uppercut droite ñoo ko bokkale. ñoo bokkale lépp waaye nag kii da koo sut boo gisee taay bi. mbër taay bi da cee baax. parce que Balla Gaye euh, du mënoo ne mënoo ko séen ne daama la. njool lu bëri sa ba seen ko njool moo xam ne ay deux naa nangam. waaye digg li ñuy wax digg bi nit mooy Balla Gaye maanaam njool lu gàttu. boo ko xoolee mënoo koo boole ci ndaama yi mënoo koo boole ci njool yi. Hmm. njool yu njool sa tax comme njool sax la gën a jege. Hmm. Modou mën nga ko boole ci ndaama yi gàtt la. Hmm. dafa gàtt ci moom. ba comme comme nag ñaar ñoom bu ñu tolloo bu ñu taxawee ñoom ñaar kii moo ëpp moo sut moo ëpp te te li kii mën li kii mën li kii mën. Mm. ah bu ñu dajee nag day daal di commencé jaaxle mm. léegi nag boo jili la fay man a am xam nga mooy lan mm-hmm. ku ne jàng sama am technique un bon boo xam ne daf lay fi mu foore ak fi mu mm-hmm. boo ci mos a mën a dajal te xamoo fi mu foore ak mu feebal rek te bu euh, sa làmb commencé naa tëju mm-hmm. mais ba may ngemb ci làmb ji dama xam ne kii tey jii du fa ma ko doon jaar du ma fa jaar tey fii laay jaar Modou Lo tey revanche bi na ko Balla Gaye daane ci combat bu njëkk ba mais bii bu ñu dellusiwaatee waroon na ñëw ne ah Balla Gaye daal daanu na ma ci combat bële mais hmm. combat bii nag beneen stratégie laa koy indil maanaam beneen doxin laa koy indil boo xam ne bii du bokk ak ni ma bëree woon ak moom hmm. parce que su bëriwaat ak moom noonu rek na moon ne mu demoon rek man lay demeeti hmm. moo tax bi ñu taxawee ñoom ñaar kenn ko ne xëy na man loolu laa yaakaar ni indi na leneen lu dul la mu indi woon ci combat bële waaw parce que kii muy Balla Gaye bëru loxo la day jàpp door a bëri kii itam day coordonné mais seetlu leen tey jii ku la sut ba Balla Gaye day si gittaaw Balla Gaye du sëgg. déedéet kii sëgg nag te Modou Lo korkat la. Hmm. xam nga ki sëgg moom nga koo ne kor door ko éperculer mën koo bëtt. Hmm. waaye ki nga xam ne si gi taxaw joon hmm. sut la mënoo taxaw taxaw yóotu ko di ko kori. déedéet soo ko kori def nga musiba de. déedéet su la tàllee arrêt nga dem teer. bu la rappelé nga dem moo tax Balla bu sëgg taxaw joon loolu tamit àndkat la ci euh, ci ci Modou Lo. waaw ñu dem. ñu dem ci combat bi. ngay leewaatoo. waaw ñu ngi leewtoo. Mm-hmm. Mm-hmm. ñu dem ñaar ku ci nekk muy xool sa morom. waaw waaw dañuy xoolante parce que fii kenn ku nekk yaa ngi xool noo mën a koree sa morom wala noo ko mën a jàppee. Mm-hmm. waaw. ñu ngi dem. waaw. parce que mhm. waaw waaw. mais père Modou Lo Balla Gaye. ñu bëree d'habitude nii Balla bu arbitre sifflé waan rek daan dal sa kaw mais combat bi daa am round d'observation ku ne di déglu sa morom. voilà parce que loolu la combat bi laaj. Mhm. parce que combat bi bis bi moo rëy. te kii Modou mi dafa ñëw di revanche di daanoon. Mhm. kii dafay wan man daanoon na daanoon naa ko dama koy daanoon kenn dama daan damay fay. wala boobu foog nga foo foo round observation foog mu am. foog nga ne tekk jooy mooy bëri bi temps gis nga Balla Gaye xam nga léegi jam na góose jam na góos bi rek ñëw droite bi gis nga ko mhm. jam na góos ñëw droite parce que xaar na xaar Modou Lô Modou Lô ñëwul mhm. dégg nga bi mu xaaree xaar xaar ñëwul léegi nan la def jam góos ñëw droite mhm. Modou Lô riposté waaye Modou Lô riposté bi xam nga lu doon bëréem wàcc pakete ko man bëri bi su doon problème bu nekk sama wet xam nga dama ko naan song rek ay jeexal bëri bi na nga daan bëri Modou Lo bi muy nekk xale riñaan mu gaaw la amoon. Mm. Balla Gaye bi fekk Modou Lo entraîné wu riñaan mu gaaw. mën mm. egg si ci biir tànk yi. Mm. pour mu daan ko day jafe. ay ca ñu dem parce que bu ne bëri rek da koy ci loxo yi. moo tax bi mu ko jamee góor jam droit Modou Lo riposté bi mu ne bëgg ñëw akal dafa waroon a wàcce rek tibb ko loolu moo doon bëri wàcce rek agsi. tibb daal wàcce rek si ci tànk yi. parce que dinaa la ñetti bëri xam nga wax naa la ko fi. ku ko mën toujours daan ko la mën. Mm-hmm. waxuma la kon muy ban ak ban boo mënee riant toujours nga daan ku man mhm. mooy song mhm. soo mënee padd mooy mhm. fosaas padd nag loxo du ko def tànk koy def tànk koy def mooy fosaas nit ñi daan boo di léegi xam nga gars yi xamul bëri boo téqee ñu ne té padd na ko euh, padd na ko déedéet du padd tànk koy def téq loxo koy def parce que soo paddee ni soo dóoree sa tànk dañaa téq na ko déedéet téq loxo du ko def téq téq loxo koy def mais padd tànk koy def ma ne soo mënee riñaan mën ngaa daan ku man soo mënee téq mën nga daan ku la man dégg nga ma la mm. loolu dafa am ci bëri téq ak riñaan mm. saa yoo ko mënee toujours nga daan ko man mm. ak mbas ak mbas waaw ñett yi saa yoo ko mënee toujours nga daan ko la man ay ca ñu dem ci ñu dem waaw xam nga xeex nañu fii xeexu bagaaru bagaaru mbedd delluwaatal mu waaw xam nga fii voilà parce que dañoo xeex waaw Modou Lo dafa mel ni Pierre da xaw ma dafa jël coup waaw xaw ma lu waral tër bi mu tërëf rek jugaat waaw xam nga tërëf bi xam nga jël coup seen bas waaw jël coup xam nga ne du ko mën a attee parce que moom ci boppam moo lay mën a xam ndax jël naa fii coup parce que coup mën nga ko dóor nit ki yëg ko mm-hmm. te doo koy war nga gis ne jag ki jël na parce que coup bu la daaneeloo rek xamoo ndax na ko wala yëg mm-hmm. day daal ndax coup bi jël na ko wala jëw ko mën ngaa seen loxo bi dal rek waaye wàññi na ko wala wàññiwu ko loolu loolu kii bi rek ko ko xam mm-hmm. euh, leader rek ko xam mbër mi ko xam mbër mi rek ko xam ndax ko wala wàññi mais fii mu ne xeexu mbedd rek lañu xeex mooy aveuglement xeexu bu gumba rek leen leen ku dóor gauche droite la ah. am hmm. jóob andi jaay am jaay indi jàpp loolu la ñu bëree hmm. waaw moom moom moom la xeex fii mais fii toujours li ma la wax rek ci biir xeex bi hmm. ma moo doon li moo doon gën a favoriser teg xeex bi de côté indi bëri bi waaw gis nga fii bi mu déplacé xoola gis nga kii xam nga dafa jëm dëw bi mu déplacé benn pas ci ginnaaw rek waa ji dafa daw yëg ko bi mu ko yëg wàcc rek loolu yoon waaye ci paquet ko rek moo doon yoon. kon Modou waru woon wuy si Balla Gaye ci xeex. déedéet du ko wuy ci xeex parce que ki la suuf ci suuf lay loxo. Hmm. suuf lay jël gerte ah, la de. ki nga xam ne hmm. hmm. da nga nga Lo li mu gën a mën a xeex mooy mu kor la. mais sa loxo épercule droite fu mu la dal nga wàcc. kooku moom forum la. waaye donc parce que mënu ko def parce que kii dafay sëgg du sëgg parce que gis nga xoolal kii xam nga kii mënul tëb di ko kori. parce que loxoom bi mënul tëb di ko yóotu loo fee. moo tax bëri bi day tëju ci moom toujours. toujours ci bëreem Balla Gaye bëri ba bëreem Balla Gaye day tëju ci Balla Gaye day ci ñu dem ñu dem. waaw. ñu xeex fii. waaw xeexu mbedd la xeex bi rek. nga bëgg am yaay ni mooy li ma la wax rek. gis nga fii doo fii nag tey ma taxal ma ñëw. xeex bu mel nii kenn ku ne mën ngaa am sens. coof sa morom point sensible mu dem maanaam nit moo bari point sensible. Hmm. maanaam mâchoire wala menton wala bët wala yi fuñ la ci daal da ngay mën ngaa dem teer moo tax xeex la boo xam ne bii kenn ku ne mën na ci am njëriñ. Hmm. ça dépend rek waa ji dóor waaw moo tax xeexu mbedd rek lañ def fii. Hmm. ñu dem waaw. Ah. Balla sëq nag. waaw Balla xam nga léegi léegi lan lay def mooy main droit ba main main goos ba jàpp na. jàpp na. xam nga main gauche moom boo du ba rëkkatu ngemb la. mais goos ba jàpp na fii léegi loxo bii rek xeexee. léegi nag moo Lo lu ma waroon def fii gis loxo bii muy xeexe comme loxo bëri téye na man dootuma xeex loxo bii daay éliminé mhm. est-ce na nit ñaari loxo la su ma woon sa loxo bi di di xaar ci dóor soo téye sama loxo bi lu may am doo naa bi pour dóor dara lii kay yéen ñiy seetaan xam ngeen di mhm. ma fay lu may def xam loxo bi mhm. loxo war a éliminé dootu bokk parce que bii la kon léegi bii rek la a bàyyi soo bàyyee bi mu may nga bàyyi doo bëtt ko. comprendre nga li ma baax. yéen ñii seetaan gis ngeen li ma baax. Mm-hmm. dama ne téye naa bii di rocc bii du téye na sama loxo bii. Mm-hmm. léegi leen laa mën a def bàyyi ko. bàyyi waaw soo bàyyi wala ne xam nga bàyyi dóor wala nga song ma. Mm-hmm. loolu la war def fii bi mu téye ngembar bi dafa warul bàyyi warul bàyyi loxo droite ba di libre warul warul loxo kii ah, droite baale rek day libre. mu bàyyi. parce que fi ne day bàcc rek. day dóor rek pour am bunt ay hypercule dóor. ay hypercule dóor te bu ci dal moom gis nga wala gis nga koor bi gis nga foofu koor. Mm-hmm. gis nga Modou Lo ngi jéem a moom it waaye moom it gis nga Modou Lo ci. waaye nag ba tey muus na fi teel teel ba tey Modou xam ne ne loxo bii lay dóore. Mm-hmm. mu génne bopp bi fii ci côté bi. génne bopp bi ci angle bi. dee ci côté bi. Mm-hmm. parce que kon ku kon ku yi muy dóor nii. su fekkoon du ko génne ci bopp bi fii. ci loxo bi libre day yàq kanam gi nangu la li wax nangu naa ko. waaw. Hmm. loo ci nangu da loo ci la jaaxal rek nee ma li jaaxal la. day daje coup bi. voilà parce que loxo bi libre soo fi génnee sa bopp da ngay daje coup bi libre. Hmm. waaye léegi nag moom muus na fi parce que génne na bopp bi ci côté bii bi mu génnee ci côté bi du ko jot. déedéet du jot foofu. déedéet fi ne moom nee naa la moom fii moom téye rek xañ ko mu ba xañ ko mu bu mu topp dóor yi na xañ na ko xañ bëre bi rek. Hmm. na bëre moom na fexe bëre bëre bi rek moo doon yoon. waaw ñu dem. ayca ñu dem. waaw waaw mais fii per Balla Gaye waroon na jàpp ba pare di dóor à tout moment. muy waaw mais jàpp di dóor boobu moo koy may bunt hmm. parce que dafa jàpp Modou Lo jàpp fii ne tey pour mu am buntu mu mën a bëri li mu bëgg pour mën ko am. Hmm. su jàppee bu dóorul du ko am. Hmm. ah nga téye ma téye ku ko téye ku def am buntu du am di. de foog nga dóor mu dóor pour mu a pour Modou Lo bàyyi fi mu a jàpp moo mën a am li mu dama naan dégg ñu bari naan buñ jàppantee dóor amatu fa yoon ah kay dóor dafa am yoon am na foo xam ne dóor amu fa yoon hmm. mooy fekk ñu jekku la ba war laa daan hmm. nga xam ne fii su ma konnee dóor dañ may daan hmm. foofu da ngay fexe défendre bañ a ba bañ a daanu waaye su fekkee dañ laa xam ne fii yow doo daan waa ji doo daan boo dóor du bàyyi foog nga dóor fi foofu mu bàyyi nga am buntu ba jaar fa maanaam nga ñëw fekk buntu bi tëju fekk nga jëm buntu bi pour mën a génn mais buntu bi bu tëjoo kay boo ko buur doo dem buntu bi nag mooy waa munoo bëtt mun def fu nga dóor dóorat bu njàmbeetee mu bàyyi. Mm. ko nangu. ayca nangu naa ñu def yàlla. waaw cay peer. waaw ah. ayca. léegi bu ñu continuer gis nga fi ni moom comme Balla Gaye moom comme loxoom droite bi téye na. Mm. moom gauche gauche gauche bi téye na moom droite bi téye bu mu dëgg rek moom gauche wala utiliser. Mm. moom loolu tamit gis nga fa mu téye moom mu ngi téye. waaye moom toujours rek ko loxo bi libre rek la war a bàyyi xel fi ne. loxo bi libre mooy gauche gauche Balla Gaye bi rek parce que droite bi téye na ba pare loxo bii bii libre bi rek moo la a bàyyi xel. Hmm. waaw moom la ba du am dara waaw. waaw parce que kon bëri bi pour jël bi du gaaw a yomb mukk ci àddina. mu ci nekk mu ngi xaar. xalaat nu a mën a def moromam ba daan ko. waaw mais nekk noo mën a jaar mais tamit ba tey tamit buntu bi day tëju fii ne parce que Modou Lo gis nga fi mu téye nii. Hmm. dégg nga kii ngi téye téye kee tamit léegi fi ñu téye fii fu mu mën a bàyyi rek. foog bëri bi yàgg pour bi mu jéem a dóor parce que bu ñu téye téye nii rek dañ leen di mu jaarte rek wala ñu ñëwaat ci géew bi hmm. wala ñu àttewaat leen hmm. waaw parce que fii ne ba suba bu ñu bàyyee di bëri bi nii rek lay demee kenn du daal hmm. waaw gis nga mu ngay jokkaas di gis nga gis nga gis nga gis nga Balla Gaye mu ngay rokkas rokkas mu ngay rokkas bu rokkas bi yàggee nag moo doon léegi rocc fay ko foo muy rocc fayu nag mooy buntu Balla ma noonu <laughs> ah waaw mooy buntu Balla mu fayu gis Hmm. parce que bu téyee rokkas benn mu rokkas ñaar rokkas ñett gis nga voilà gis nga fii tam Balla fii mooy xool naa la ko ci contre fii tam Balla dina bi mu rocc ci biir fii la biir boobu moo dugal ñëw mais bi mu roccee nii bi mu roccee loxo bii rek hmm. gis nga Balla Modou Lo tànkam bii hmm. tànko jor waroon avancé bi moom ni tëli baaxu taan waaji de bàyyi bi jàll tatafu ndigli day takk ndigli waaw takk ndigli foofu nag fii nag bu dee Balla Gaye bërikat la. Hmm. bu taa bu jaaree ci wet yi am na fi crochet tëgg mboot. Hmm. am na fi mboot jolal am na fi lu ne moom it bu fekkee bëri mat mate ne ko. Hmm. am na fi mu waa jaar ci boobu mu tëgg ko si mataa bi ñu ànd dem. waaw mais nag moom it suy dugg na bàyyi xel ne fii may dugg kat yoon la waaye ndëgg sa a ngi fi. xam nga ndëgg sa rëx gi mooy lan. ubbil ma bunt pour demee rek yoon wu neex la nekk dem mboot la ma pourtant père li nga wax ni ah yottal la ngay wax bunt bi daa bëggoon mu jàll mu waa ji dama ne dama ne waaye waaye waaye mën naa ma am mboot ñu réussir mais mën a a réussir uh-huh. uh-huh. man ngay ma ubbil mboot fekk man sa sóoraale naa mboot mi mm-hmm. bu ma sóoraalee mboot mi gis nga bu mm-hmm. tànk bi gis nga cuisse bi ah. lay war nañoo sol blouson yor place ma war na fi wala gis nga loosam wii mm-hmm. moom lay tële poqtaan bi bala ko tànk bi moom mboot mi dem ay ci ñu dem bu mu wootee doom dara. waaw nee na day fekk ne Modou Lo sóoraale na mboot mi. waaw. fii nag daa mel ni Balla nga koy gën a njatt. waaw léegi nag gis na fii Balla kii moom moom fii tam ma ñëw ma ñëw. ma mm. ñëw gis nga Modou fi mu ne nii. Mm. xam nga rasu na sànni tànk yi. Mm. pour jéem koo jaay pour ko suruxal ko ci biiram. Mm-hmm. da koo bëgg a suruxal ci biiram. ci biir suruxalam boobu nag Modou moom la man sama doom dama laay bay. Mm-hmm. parce que gis nga ku la ëpp doole toujours bu la bu la ñetteelu yàgg rek seen liggéey day poids bi lay bees. waaw ah, non sëglu yàgg baaxul ci ndigg. te ci njool la gën a bañ am njool du sëglu yàgg. am njool. du sëglu yàgg li ma la wax ay téere laa la wax am njool tam boo sëgee sëg bi bu mu yàgg parce que ki ki la féete kaw bu diisee ci yow bu yàggee rek nga toog. nangu li ma waxal <laughs> la. ñëpp la. ay léegi la yow nga toog. Mm-hmm. waaw bu yàggee rek nga toog nañ dem. ay ayca parce que dafa daf ko mbaar fi mu ne nii xool téye ñaari franc yi. Hmm. maanaam téye na ngemb ci gauche téye ci droite. Hmm. léegi sànni tànk yi nag mu jëm ko suñu xol. pour mu dugg ci biiram nag nga xam ne dootul jaar gauche dootul jaar droite ñu dem. ñu dem gis nga Modou fi mu ne nii. Hmm. jéemoon a génn arrière rek su ma doon moom. damay génn fexe ba dem ci saako yi ñu génn ñu àtte yi parce que bu ñu jéggee saako yi. foog ñu àtte leen. bu ñu leen àttee bu ñu ñëwee ma ne ah gis nga voilà gis nga ñett bi. Hmm. toujours ñett bi moom Balla Gaye koy duma soxla gis nga dóor yi yëpp gis nga wala xam nga jaar na ci woon. Hmm. léegi nag voilà teel fii teel fii. gis nga fii mu xam nga li ma la waxoon. waaw génne loos bi. génn na xam nga génne loos bi tël hmm. léegi nag tànk bële mooy bi bi la. tànk gauche bi la ngay dóor ci bii. père xoolal loxo Balla bi fa mu jaar. waaw gis nga ko. gis naa ko non xam nga lan la. tànk xam nga tax mu jaar fa. Euh, pour mu samp da samp. loolu la Balla bëgg. baax loolu bëgg gis nga bu jaaree ci franc. Hmm. bu jaaree bu jaare ci gis na gis nga loxo bëre. Hmm. day tëlaale cuisse bi nii pour samp ko. Hmm. pour mu samp ko waaye bu fekkee mu siggi loos wi nii. tànk bi moom mu dóor ko ci cuisse bi nii ak loos wi moo koy dimbali xam nga yu ci bari boo koy wax. te fekk na boo sumi ko woo wane ko day ñiy seetaan ñi mënta bëre pour ñu xam ko day jafe. mais ñi mën a bëre dañu xam li nga wax. mais ñi mënta bëre. affaire bi day t ci seen waaye gis nga fii bëri bu Modou jaar na ci waxtaan gis na hmm. la koy dóoree mu waaye tànk bii ci ginnaaw tànkam gauche bi day ñëw bu mu bu mu calculer teq bi nag na hmm. parce que ki teq ngi fi lépp ngi fi mais da koy sóoraale. gis nga su ko sóoraalee. Hmm. <laughs> bi nii dara ma mën na loxom bii loxo gauche bi xam nga fu mu féete loxo ba ca biir. loxo loxo gauche bii droite bi la. loxo gauche bi da koy bàyyi fi ne tànn ñëw ci ndigg ak bii di mu takk ndigg takk ndigum dafa loolu la takk ndigum Balla Gaye ñu dem. mais fii boobu position baax la waaw parce que Balla kii bëri na gis nga lii yëpp day jéem a rasu pour tënku gis nga loxoom bii. Hmm. loxo droitam bii. waaw comme téye na ko dëgg rek su dee bëgg nañu da koy pousse ba pare pour samp ko pour bëgg na mu jaar ci côté ba pour sëlu mais mën na faa jaar mais da ciy bàyyi xel. Hmm. Modou Lo mënoon na faa jaar am ci ndam waaye da cee bàyyi xel nag bu ca bàyyiwul xel man caa mën na caa daanu jël bu hmm. parce que ndëgg sërëx la. maanaam te comme ni ma la ko waxee mooy piège la. piège la da koo gasal kàmb. waaw mu ngoog très moo tax ñoom ñaar jàppante nañ ba tey ñu ngi dégg ñante. ñu dem. Hmm. waaw. ñu dem. Hmm. waaw. toujours ba tey njett bi dafa yàgg. gis nga gis nga njett bi toujours. Hmm. toujours Modou Lo ba tey mu ngi ci biir. mu ngi ci biir waaw waaw gis nga bu jéemul génn. bu jéemul génn njett bi waroo fa yàgg. bi mu ko njettee ñaareel ñett rek fii ne moom war a génn tàqali ko rek mooy yoon hmm. tàqali ko rek mooy mooy yoon fii mu ne nii ci biir bëre bi dafa mel ni Modou sonn na ndax loxom bi mu waroon jàppee mu ko teg ci oomam bi waaw nga lan la dégg ko hmm. na la njett hmm. bu yàggee da ngay toqi sëgg bu yàggee rek nga toqi dëgg la xam nga toqi parce que sëgg bi waa ji ëpp la doole pare téeloo pare njett dugal ci bi di la bës ngay ngay riposté di bañ loolu bu yàggee dañuy tëj dalay sonn yàgg yàgg day sonn. parce que ki la bu doole bu la jotee jotee bu yàggee di tëj sa bëre. ayca ñu dem ñu dem. gis nga gis nga wàcc bi gis nga. teel foofu gis nga teel. voilà Balla moo jiitu suuf waaw gàll gàllagul daal. Hmm. dóor na ñaar yow bi dóor na ñaari yow bi rasu. demal hmm. demal voilà xam nga dóor na ñaar teel. Hmm. dóor na ñaari yow bi rasu mais Modou sëgg bi baaxul ci moom. gis nga fii Balla Gaye bu seetlu woon rek bëri bi jeex na. bu seetlu woon rek bëri bi jeex na. gis nga loxoom bii wax bi lay wàcc rek waaw fee lay bàyyi. dama ne gis nga loxoom bii droite bii. Mm-hmm. moom lay bàyyi rek téye wax wi maanaam cheville bi. Mm-hmm. rek door ko dëgg. ci biir la koy tënk fii nii ci biir ginnaaw lay téye rek teex ko mu toog. laay jaay de Pape Mor Lo. waa ji dama ne bo bo mm-hmm. teq moom. Ah. waaye ba tey position yi bokkul. ba tey moom ba laay gay de mais teq la may position yu bokkul waaye droite am bii. droite bii. wax bi da doon ñëw rek soli ko mu jeex. waaye du téexkat parce que hmm. loolu bëri téexkat moo ko def moo koy def hmm. bi mu rasoo rek tànk bi jigéen na ko gis nga loxo bii hmm. ngeen fii lay jël ci bii bu jëlee sel bi yéeg ko rek danaa dem parce que Modou fii tam foo may ma waaw xam nga jógaat na demal demal bi ñëwoon fii ñëwoon demal gis nga bi léegi Modou fii def de gis nga loxom bii ni mu bankoon di yoon da war a tàllal da ko loxo bii. Hmm. moom xam naa ne xëy na mu ngi may seetaan ba ma seetaan dina ma gis mais loxoom bii waru leen da ko war a tàllal pour waa ji ko pour génn parce que waaja jàng ko bëgg sunu xol ci biiram. da koy tàllal du waa ji doog kaw kawam. Hmm. est fi may waxee. da koy tàllal ba doog si waaye dafa bàyyi gis dafa téye rek yow bi sax bu njett bi que téye na franc bi téye franc hmm. léegi mu du moo du surux na mu ngi ci pièce bi pièce bi Balla Gaye bëggoon am na ci. ca day day mujj Modou xam nga lu muy mujj toqi xoolal xoolal bopp bi xoolal bopp bi fi mu ne fii mënta dóor mënta bëri fii génn rek moo doon yoon jéem a rassurer ci rek fii ne bëri bi bëri dafay togg foo xam ne fii hmm. bu jéem a daan bu jéem a daan jéem a rëcc rek hmm. bëri da ngay toll action action yoo xam ne yi mu ngi mel ni ngay dawal loto wala nga nekk situation yu difficile hmm. yoo xam ne yi xam nga lan ngay fexe fexe ba ci rek bul daanu waaye bul wuta daan bul wuta daan fexeel ba rëcc rek. parce que situation yi mu toll nii fi mu ne nii. léegi xam-xam bi lépp lépp lépp mooy muur fexe rëcc rek moo doon yoon ci que tendre nañ ko piège ba dugg na ci piège bi ba pare léegi fexe nu mu rëcc rek moo doon yoon. te li ma jaaxal père saa lu muy gën di dugg day gën a dugg. ci piège ba ah, waaw waaw mais parce que Balla Gaye parce que ni mu ko ëmbee la. da koo hmm. su dëpp ko ba pare xool téye fii téye fanaa bële. muuru ñett bii mooy warul nangu ñett bii moo dul yoon. Hmm, hmm. mu ngi mel ne tey jii nga seet xale bu ndaw nga jootu ko njatt ko dugal ko sa biir njatt ko fu muy génne. Ah? du génn. dugg na ci kàmb gi ba pare kàmb gi mu dugg na li ko ci mënoon a génne mooy tàllal loxo bi ràcc hmm. benn euh, pied gauche bi mu mën a bëree ne ci kanam droite bi mu tàlle ko ca ginnaaw hmm. tàllal loxo bi nag loxo bi day tàlli war tolle mu da ko tàllal maanaam su su dégagé wu carrément ci non loxo bi gis nga fi ne nii su ma téye nii Hmm. su ma defee sama loxo ni nga jege nii. Hmm. mais su ma tàllee sama loxo nii est-ce que mën ngaa ñëw ñëwal. dama lay ñëwal ñëwal doo ñëw ñëwal doo ñëw. doo ñëw ba suba mënoo ñëw. Hmm. parce que dama taal bu ma defee sama loxo nii da may jege. waaw mais su ma tàllee sama loxo fii nii ba suba mënoo ñëw. loolu moo waroon am ci bëre bi mooy tàllal bi ma la wax nii. ayca ñu dem ñu dem. ñu dem waaw gis nga. Balla bës na ko waaw bës na ko sa ñett ñett bee sax. Mhm. fii dootu génn ba suba. kon fii mënatu cee génn. mu mënatu dootu ci génn pièce bi moom ñor na ba pare. Mhm. pièce bi moom tàmbi na ba pare dugale. fii ne tey xam nga lu ko fi mën a génne. Mhm. wërsëg wóor xéewal ko wóor a wóor a wóor ngoo xam ne kii ca borom ba dong la jóge rek ko ci mën a génne. waaw oh. <laughs> fii fii moom bu fi Modou génnee moom leen rek la mën a def. julli ñaar rakk bu demee nag julli ñaar rakk sant borom xam ne tey jii oh. yàlla ma suturaal. waaw mais fii moom pour mu génnati bi. Mm-hmm. gisatuma ko. mais père est-ce que Balla lii mu def Modou. Mm-hmm. bu ko defoon dix mbër ci làmb ji am na ku ci mën a rëcc. ah xanaa nga am sens rek man nga ci rëcc waaye nga am wërsëg rek parce que wërsëg nag day feeñ fu ne. maanaam boo ci rëcc. waaye lii sens a tax nga rëcc. waaw waaw waaye du mën a bëri. dafa am mm-hmm. sens piège yoo xam ne boo ci xasee dugg ba pare. boo demee ba ñibbi bul yaakaar ne da ngaa daan daan nga waaye la a kii amoon na fi benn sens mooy gis nga loxoom bii Hmm. mënoon naa jéem a soli waxu waxu Balla Gaye bi hmm. jéem pousse ko mu dem waaw tamit bu yàlla bu yàlla bu ko fi yàlla joxee sens man na fi am sens fii tamit hmm. parce fii léegi loxom bële moom droite am bële ak gauche bi mën naa sëpp bi jël gauche bi soli waxu Balla Gaye parce que bopp bi na ci suuf ba pare mais pour mu def ko day jafe mais loolu tenté sens la rek nag mën a tenté sens loxom bii loxo gauche bii jéem a soli waxu tànk droite am bii droite Balla Gaye bi ayca ñu dem ñu dem waaw gis nga voilà gis nga ko léegi lippi na ko lii nag mooy tudd lippi. lippi lippi. mooy tooj ñaari tànk waaw waaw loolu boo ko laajee ci làmb ji tey ñu ci bari tey boole nañu. déedéet xamuñu ko. déedéet tooj na ko la ñuy wax di ko voilà tooj na ko déedéet. voilà voilà du loolu nag euh, xam nga bëri dafa am ñaar dafa am lippi. Hmm. ak firi. Hmm. firi mooy action bi. mais lippi mooy nga mu jarte waaj dugal ko ba ci biir dugal ko téye ñaari flan yi ci bopp ne ko simpeet génn loxo bopp bi féete suuf loxo yi hmm. tànk yi ne ca kaw loolu mooy lippi loolu mooy lippi waaw ndeysaan moo tax sama classe bi bu ñuy wax dañ koy waxee ci beneen anam boo xamante ne lu ñaaw la ay ca ñu dem waaw waaw lippi la hmm. loolu mooy lippi bëri joolaa la quoi hmm. lool li mu def nii bëri joolaa la waaw moom tudd lippi gis nga bu ko lippi day jeex bëri bi jeexantaat mhm. foofu la mujj demee léppi na ko parce que bi mu ko suppee parce que foofu Modou mënatoo risqué parce que njett bi dafa yàgg mhm. action bi dafa yàgg action bu yàgg action bu ñu la jekkoo bul ca yàgg mhm. action bu ñu la jekkoo rek bul ca yàgg soo ci yàggee rek da ngay loof te jàpp bi ko moo Modou ji waa ji jàpp téye ñaari franc yi du surxal ko ci biiram dafa yàgg yàgg na fa yàgg koo xam ne gii day dema dem ay cëram yëpp ay bàyyi ndigli toqi yaram bi bàyyi ci kulóopu doole sudlóopu la doole da ngay bàyyi day bàyyi fii de moom ration bi bi mu ko jëmee sërxal ration bi rek moo doon yoon muy benn ñaareel bi bi mu ñëwee tamit di bëri seeg Balla Gaye tamit lenn la waroon sóole Balla jàpp mooy forum mais dama koy xañ jàpp bi mm-hmm. te Balla xañ ko jàpp ci bëri jafe na mais nag mooy nga déplacé la bii ba gauche mu defee da ngay ñëw nga déplacé latéral jéem koo riñaan mm-hmm. jéem ko pakate parce que ne nee naa la mbërum mën a song riñaan padd song mbas yooyu comme su ko daan ko la man waaye ponkal mën a yoon ba jàpp ba dëgër ba mu dëgër nga rëcc ca day jafe jërëjëf père loolu jafe ci bëri la. loolu dafa mais combat bu neex la nag. Mm-hmm. combat bu neex la ñoom ñaar ñaar kenn seen bëri dafa sof nag. Mm-hmm. seen bëri dañoo bokkul lu ñuy bëree ba tey. Mm-hmm. waaw moo tax seen victoire yi di féete boor. victoire yi gën a féete ci booru Balla Gaye parce que Balla Gaye li muy bëri bokkul ak li Modou Lo di bëri. moo tax Modou mën naa daan ko Balla Gaye mënta naa daan ko Modou Lo mën la daan. wane na ko parce que Balla Gaye euh, Modou Lo daan na Eumeu ñaari yoon. Mm-hmm. Eumeu Sène daan Balla Gaye ñaari yoon. dëgg la Balla daan Modou Lo ñaari yoon. dëgg la moo lay wan ni làmb ji ci kaw. Mm-hmm. des fois dañu naan mbër yi ci kaw kenn mm-hmm. mënut kenn. carré d'as bi ku nekk day daan sa morom. waaw ah, dëgg la. waaw noonu la parce que xam nga lan la. Euh, dafa loo xam ne nii nit ki ko a jàng ci mbër. Euh, mais dañ ko dul jàng. parce que mooy euh, nit bu dara boo ñëwee fakkastalu tey ci benn boo lëggee boo ñëwee da ngaa war a beneen beneen stratégie ngay indi. jàng leneen pour joobloo ko waaye lan wala daane tey boo ko jàngul bu subaa dala ciy daan. gannaaw suba dala ciy daan ba kër ngeen bàyyi lamb su ko defee ñu naan bête noire am la bête noire fekk na booba. bête noire mooy da nga koo jàngul. waaw nit ki lu la jaaxal da koy teel a étudier. boo étudier jar na nga dem seeti borom xam-xam. toog waxtaan ak moom mu jàngal la boroom xam-xam jàngal la kii li may daane nan la nan laa ko mën a dindee. waaw kii mu ne la nii lay daane sàmm leen nga dem géej wala nga dem place bu toog mu wan la ne la nii ak nii lii nga koy bay moo tax ma dina daane ci lii waaye soo dindee lii dootu la daan. dëgg la loolu mbër jaar na ci ba tàyyi waaye ñun dafa am leen loo xam ne moom la ñu gën a gëm. Hmm. ba ñu jàng ñu jàng suñuy erreur. xam nga mooy lan. mooy lan topp njibar. dañuy ñëw waaw wala yooyu ñëw ne la ma ñëw ne la ah waa ji de daan na ma ci nga ne ko waaw biteel bii nga waroon a sangoo da ngaa fàtte biteel bii wala bunt bii nga waroon jaar jaaroo fa wala kat màgget mee nga nuyool ah wala Bachir wala Ousin kooku xanaa xamoon ne supporteru diw la hmm. moom nga dajal kooku la mii nga daal di yàq sa digganteeg moom nag fekk na booba du loolu da ngaa jàngul waa ji hmm. dafa am fu mu foore lool te moytuwuloo ko boo jaaru foofu moom da ngay daanu rek moo tax nit da ngay xam fi mu foore ak fi feebale fi mu feebaree saa yoo fa jaaree indi ko problème fi mu fooree fi mu feebaree saa yoo fa jaaree jaaxle na. jërëjëf am na solo. Père Birahim dégg ngeen li nga xamante ni moom la leen wax lépp ci jàngat làmb ji. ñuy jëfalaat ñuy jaajëfal bu baax a baax a baax waa Dakaractu ñi nga xamante ni suñuy confrère la. ci ñoom lañ jëlee image bi tey. ñu doon jàngatee làmb ji ñu leen di jaajëfal bu baax a baax a baax di fa nuyu sama xarit ba Père Bourguewal ma koy siyaar bu baax a baax a baax Bourguewal bu Dakaractu liggéey bi rafet na trop Père ma lay jëfal bu baax a baax. waaw jërëjëf maa ngi nuyu ñëpp di nuyu sama benn boy bu baax nag boo xam ne ba ma si pot bu keroog sax mu ngi apprécier seen site bi ñu di ko hmm. wax Mbodj bu Sonatel Mbodj bu Sonatel waaw waaw Mbodj moom itam hmm. séeréer mu ngi nekk euh, ci booru Kaolack seen dëkk foofu diye diye la dëkk hmm, Mbodj bu diye waaw mu naan maa ngi lay seetaan ci sabar ma ne ko baa baax na mu ne ah waaye yow xam nga ne bu demoon ne koy ba naa la mu ne ma yëpp analyse yëpp may moom di ko nuyu baax nag di ko ñaanal xale bu baax bu yaru waaw di ko nuyu ak ñoom Birame Ndoye xale yi nekk États-Unis ak ñoom yëpp nga xam ne dañuy safoo Père Birahim ci ay analyse am ak yooyu eh, ma den a loxo rek man dong ni dong ndongo laa te matuma. Hmm. Euh, te xëy na du lépp laa xam. ku ci gis loo xam ne man nga ñoo yokk rek nga yokk ñu. Hmm. parce que tamit ku ci xam ne wax nañu loo xam ne xëy na li ñu wax arrangé wul te du noonu. Hmm. wala nga leneen. boo ñu ko waxee yokk suñu xam-xam rek. parce que doomu aadama matul du xam lépp. am déet. am na solo kon yàlla na yàlla defal sutura. yàlla def jàmm ci kër gi. ba yàlla defal ñu jàmm xale yi yéen ñëpp war kàlla ñi amagul soxna yàlla jox leen soxna. ah, ah ñi nga xam ne am nañu tamit yàlla jubal seen i mbir. <laughs> Euh, euh, waaw. fii de yaakaar naa kenn amu fi soxla boobu. Ah. ak ah. kàggu kàggu ah. moom. waaw patron bi sax moom ba léegi. bas bas ba léegi. bu ngi bu ngi waaw kon leen loxo yàlla mooy jox leen ci gone yu baax yi. amiin amiin amiin tam xale yu jigéen yi tamit ñoom tuppoo xale yi nga xam ne ñi am jëkkër. Hmm. yàlla jubal leen seen borom kër ñi amagul tamit. yàlla jox leen borom kër yu baax nag. Hmm. yu yoo xam ne bu ñuy bu ñuy joxe dañuy nuqi rek du ñu làmb. weccat di ñuqi rek doo calculer ñoom ñoom du ñu calculer dañuy nuqi rek joxe. <laughs> en tout yaakaar naa loolu ku am moom doo wax dara. dëgg la dëgg la jërëjëf kontaan trop nag ci mm. waxtaan ak yow. parce que mm. waxtaan ak yow. Mm. neex na ma lool quoi wax dëgg yàlla. Ah. gis naa yar bi gis naa teggin yi. Hmm. xale bi daal wax dëgg yàlla yàgguma ci yéen mais gis naa xale yu xale yaru fekk daal. jërëjëf jërëjëf di ci yéen yëpp. jërëjëf eh, di ñaan ci yàlla yàlla bu mu suñu mujj daje. amiin yàlla bàyyi ñu suñu xel te may ñu wér. Ah, bu ñuy sooxee di ñëw rek parce fi ne ay mag la dañuy soox rek. di ñëw waaye fi ne vraiment bëgg-bëgg fi nekk rek waaye. temps jot gi sax ak wér gi sax moyetuñ ko waaye nit boo fooyee dara ba màgg ci ba la hmm. hmm. ah, jox foog nga jàpp ci ci xam-xam li nga mën waaw ah, kon nag jërëjëf maa ngi kontaan ñëpp. Hmm. Maguette maa ngi lay gërëm caméraman bi. Hmm. di gërëm suñu gars yëpp daal. Hmm. Adama. Adama Adama Adama Adama waaw euh, mën na ni tey émission wu tey bi kon euh, Mbodj lañ koy may bu bu Sonatel. waaw la kon Mbodj tey dëgg la dëgg la ah, kon tey Mbodj borom Sonatel lañ may émission bi tey ñu leen di jaajëfal bu baax a baax a baax mbokk yi di leen tàggu ci tàggoo bi nga xamante ne maa moo dul tàqali ko ba ëllëg incha allah ci jàngat lamb bàyyi jiile ak père Birahim jërëjëf père jërëjëf kontaan jëfati